ñu tàmbale ko Walf Quotidien. mangoog euh, yéenekaay bi jiitu ca Fajar Walfadjri Quotidien xëy naa jiitu tey ci entreprise yi euh, xëy jamono gis bu yaatu ci jamono joo xamante ne chef d' entreprise yi daanaka mënata ñoo nelaw ba yandoor ndax jafe-jafe yi nga xamante moom la ay entreprise yu bëri nekkee ci jamono ji di ko dund ci wàllu koom euh, bu ñu sukkandikoo ci étude gëstu boo xamante ne direction générale de la planification et des politiques économiques def na ko ci tolluwaayu entreprise yu Sénégal ak jafe-jafe leen tënk moo xam fisc beek yeneen ak yeneen mu ngi ci yéen bi di Walf Quotidien yéen a baa ngi ñu dégtal mbënd ma nga xamante ne am na ci euh, Sahel bi euh, ñaari téeméeri dama yu toftal ñeent yoo xamante ne faatu nañu moo xam ca Niger Mali ak euh, Tchad ci jamono ji yi Walf Quotidien yi tamit ma nga woon ca Touba nganuk njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye jot naa diisoo xalif général des Mourides foofee ca Touba jëm ci wàccaayu màggalu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké mu ngi ci yéen a bi di Walf Quotidien le soleil le soleil Fatou Diouf Faye desandeek ñun ca Touba lañ fa waxtaanee bokk na ci euh, ndoxum naan ca Touba Mbàkkeek mbirum assainissement bokk na ci di fës euh, ci pomm yoo xamante ne jot nañ caa diisoo diggante njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye Faye xalif général des Mourides Sëñ Mountakha Bassirou Mbàkke lu aju ci wàllu ndox maak assainissement njiitu réew mi ne nguur dina ci def kéemtalaay kàttanam ngir saafara mun ci am ci lu gaaw xalif bi moom jot na ñaanal njiitu réew mi ci jëmale Sénégal ca kanam loole du ca wet daañ ko ca gunge eh, ñaan na itamit ñu fexe ba eh, jàmm jooje nga xamante ne Sénégal am na ko ñu fexe ba eh, mu mun a law fépp ñu mun ko fee sàmm xalif bi sàkku na ci chauffeur si ñu bàyyi xel ci wàllu tali bi daw nag euh, gën a euh, tënku ci code de la euh, mu jëm ci wàccaayu màggal gi. bés bi le jour. bés bi le jour mu ngi dégtal sëñ Mountakha Bassirou Mbacké diggam ak njiitu mi Bassirou Diomaye Faye démb ca Touba Mbacké yéen bi ne xalif bi sàkku na ci njiitu réew mi mu ubbil ay buntu ñëpp wartaam xaaj ak seen ña ko fal ña ko fal ña leen na na leen dalal loolee doon na ca kuteefu xalif général des Mourides njiitu mi xam le ne itam tamit ne nguur gi euh, bokk na ci ci liggéeyam ak projet fexe ba indi saafara ci jafe-jafe yi tënk euh, ñàkkum ndoxum naan ca Touba ak mbirum assainissement loolee euh, ci liggéey Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké xalif général maanaam ki yor kàddu xalif général de Mourides sàkku na ci chauffeur si ñu doon tànk bàyyi xel ci wàllu dem ak dikk bi gën a tënku ci code de la route mu ngi ci yéene kaa bi di bés bi jour Laas euh, Fatou ju fay mu ñu dégtal Touba Mbacké ma nga foon démb laata màggal gi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye jot na fa faram-fàccee eh, projet gi nga xamante ne amee na ko ci jamono ji rawatina projet gi mu fas yéene jagleel eh, Touba Mbacké ba jafe-jafe ñàkkum ndox naan ak wàllu assainissement mun fa doon de bon bippoon njiitu réew mi ne duñ ca des ginnaaw daañ ci eh, béy seen waar xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ne daañ ko ca gunge daañu gunge gunge nguur gi fi ne ne euh, sas na ko soññ na ko ngir mu ubbil ay buntam ñëpp mu ngi ci yéene kaa bi di laas ci xëtëm bu njëkk. l'info l'info ñuy dégtal nganuk njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye Faye ca Touba Mbacké euh, Touba jot nañ ko dalal rafetlu tànk yi nga xamante ne moom la fa ci jamono ji xalif bi ñaanal na ko waaye nag njiitu réew mi Bassirou Diomaye wax na ne Touba googee daañ ci amal liggéey gu am solo gu mucc ayib jëm ci sax mun a saafara ci lu gaaw tolof tolof yi nga xamante ne moom la askanu Touba di dund loolu euh, saay su ne rawatina saay bu màggal jotee euh, ci ñàkkum ndox moom naa nag euh, assainissement ak mbënd ma leen di sonal saay su ne loolee nguur gi mu ngi liggéey te saay bu sottee dina jur saafara ci lu gaaw foofee ca mu ci yéene kaa bi di l'info Sud Quotidien Sud Quotidien xëy dugg ci assemblée nationale mu ñu ne ci jamono ji nañ ko tas saay bu ñu ne tas nañu assemblée nationale warta bett kenn yéene kaa bi nag am taxaw seetlu ci taxawaayu njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye mi ñu ne politique tënk na ko ci jamono ji ndax bëgg na assemblée goo xamante ne daañ ci gis seen bopp maanaam am ca majorité euh, laata ñu fay euh, dalal première ministre Ousmane Sonko mu fay amal déclaration de politique euh, générale am mu ngi ci yéen a kaabi di Sud Quotidien ci xëtam bu njëkk. 24 heures 24 heures delluwaat ca Touba Mbacké mu ngi dektal yi tamit Bassirou Diomaye Faye fas yéene songu assainissement bu Touba ñàkkum ndox ma ca Touba fexe ba Touba jotee ci ndox mu sell te bari lool. doon na lu yitteel euh, njiitu réew mi fay Diomaye Faye euh, xamle na ko jot gi ñu dénk wàllu hydraulique ak assainissement jàpp yi tamit daañu ci béy waar wu yaatu euh, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides jot naa bàyyiloo xel njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye xamle ne liggéey googu nga xamante ne ca la ko woote ngir Sénégal mën a jëm ca kanam dañ ko ca gunge bokk na ci tamit jafe-jafe yoon yi xalif bi ñaax na ci chauffeur si. ñu daw ndànk te gën a tënku ci code de la route ñaanal na ñëpp màggalum jàmm Touba googee sax ki nga xamante ne mooy euh, Mbackiou Faye àdduna ci euh, jàpp ne faw ñu jël matuwaay yi war ngir fexe ba assainissement euh, Touba dootu ko dund wàllu assainissement jafe-jafeem ak feneen ak feneen daanaka ñu mun caa indi saafara mu ngi ci yéene kaa bi di 24 heures ci xëtam bu njëkk Fatou Diouf Faye ñu ngi seen itamit sénéra mi jël dogal jëm ci këru tasukaayu xibaar yi appal na leen fii leeg fanweeri fan ngir ñu mun a sàmmoon sàmmonteeg wàccook itamit la nga xamante ne mooy cahier de charge bi maanaam code de la presse ñu gën ko ca tënku bu ñu sukkandikoo ci sénéra ma ngay saytu di joyantiwaat euh, secteur gi ni mel mu ngi ci 24 euh, heures le mandat le mandat mën ñuy dégtal accident yu bëri ci réew réewum senegal ay bakkan di ci rot euh, saay su ne yéen a bi di la mandat nag jàpp ne daanaka euh, yenn ci chauffeur si seen dawalin dafa ruslu ci jamono ji chauffeur su bari sax ñu ngi joxe seen xalaat ana lu sookee accident yi ñu mel nees mun a def ba accident yi mun a wàññeeku wala bëgg euh, dem fi ba faw mu ngi ci nekk bi di le mandat hôpital Cheikh Ahmadou Cheikhul Khadim foofee ca Touba Mbacké soobu na ci wàccaayu màggal askan wi yéen kaabi di la mandat yi tamit taxaw ci CNRA mi appal fanweeri fan maanaam ñi nga xamante ne ñooy média yi ngir ñu gën a euh, sàlloog euh, digle yeeg euh, tegtal yi jëm ci code de la presse ngir xool ña ci tegu ci yoon ak ñi ci teguwul ci yoon mu ngi ci yéen a kaabi di le mandat ci xëtam bu njëkk. source a source a xëy na teeri ji cappooru Ndakaaru ak coow la fa ne cobooy liggéeykat ya ba léegi neexoo guñoog seen njiit lu bees ba di Waly Diouf Bodian yéen a kaabi di source a jàpp mbetteel ak yaakaar bu tas moom la liggéeykatu port di dund ci jamono ji mu ngi ci yéenekaay bi di Source A yéenekaay ba ñu dégtal yi tamit lu ci El Malick Ndiaye jor ngi ñu dénk wàllu transport eh, dikkat na ci wàllu transport bokk na ci lañ ci ñàkk ak mu jot 900 eh, milliards eh, faw ñu jooyantiwaat ko ngir Sénégal mun caa gis boppam jël na ay engagement ca Touba Mbacké njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye eh, ngir indi saafara ci assainissement ak eh, ñàkkum ndoxum nan eh, ca Touba Mbacké quotidien yor yor yor yor mu ñuy dégtal lu waaju ci aide à la presse tong-tong ga ci am seddoo nga ci am saax-saaxee nañu aide à la presse yéene bi gis ne li ni mel dafa ruslu yor yor bi xëy duñu ko dégtal lu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions yoo xamante ne dañ ko jox ay entreprise yoo xamante ne jotewuñu lenn laalewuñu lenn ak secteur la euh, nañu séddoo mbir yi ak euh, yéen kaa bi di yor-yor gi xëy duñu ko dégtal CORED amoon na 15 millions euh, commission de la carte nationale de presse 40 millions SYNPICS 10 millions appel 5 millions CESTI 25 millions assise nationale des médias 50 millions convention des jeunes reporters 15 millions mu ngi ci yéen kaa bi di yor-yor bi. l'évidence l'évidence xëy duñu dégtal Mabouba Diop laaj daal di samp ndax xam na déggantaan projet gi mm. jëm ci wàllu mbéy mi yéen kaa bi di l'évidence ne jëm ci coowal. Euh, ONAS euh, tey ji ñu ngi séntu Cheikh Tidiane Dieye jor gi ñu dénk wàllu ndox meeg assainissement mu indi ci ay leeral gannaaw kàddu tuuma ya tukkee ci docteur Cheikh Dieng ma fa jiite woon ONAS euh, ndax newuñ ci yoonu tekki ndombol tànkam moom Cheikh Tidiane Dieye. Dakar Times. Dakar Times ne am na pétition am na ñu jóg di signé ngir itamit yoon mun a def liggéeyam ci dossier ONAS yéene cabinet procureur daanaka mun nañ ko ca jébbal kayit bu ñu noppee ci màggal gi ngir lu ñutu li nga xamante moo xew ca ONAS te mu jur fa coow diggante ñaari cheikh yi muy Cheikh Tidiane Dieye jor ngi ñu dénk wàllu ndox meek assainissement ak docteur Cheikh euh, Dieng na fa jiite woon ONAS mbokki li tënk la woon ci xeetu xetu yéen kaay daan ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo Fatou Diouf Faye ma bàyyi la ak euh, jaamu séréer bi xam naa tey dañ koy bàyyi nag mu doon buur ndax ñoo ko seq euh, suñu doyen Demba mata Dia mu mm-hmm. amal taxaw seetlu ci actualité bi mm-hmm. xam actuellement ak ñàkkum ndox gi nga xamante ne moom la Touba di dund bokk na ci coowal aide à la presse mi nga xamante teg nañ ko léegi ci penc mi lu bari mhm. jot na cee leer mhm. euh, sax sax ak tong tong ga ñu ne am na ca loolu dina ci joxe xalaatam ak mhm. wàllu transport ak yeneen ak yeneen ma bàyyi la ak moom su ko defee ma dem ca Walf FM baatu askan wi incha allah dañ lay xaar ci 91 mbokk auditeurs yi foofu di la rek bu baax Abdoulaye Bopp dañuy ñëw léegi waat ci plateau bi ànd ceeg Mademba Hamata ja mu tënkal ñu wala analyser ñu li nga xamante ne mooy actualité bi fi gën a fës ki tey. Moussa. oui dans notre trop euh, Mademba Ramata Dia ginnaaw gi nga xamante ne mooy euh, tënk yéenekaay yi li ci gën a fës gis nañ ko Walf Quotidien dem na sax ba titré lu jëm ci difficulté entreprise de presse yi euh, entreprise yi de manière générale avant ñu ñëw ci situation presse bi ak li nga xamante ne mooy aide à la presse bi indi coow bu bari. Hmm. bon hmm. entreprise yi nekk sunum réew. yu hmm. ci bari dañoo am jafe-jafe. jafe-jafe bi ci gën a mag mooy. accès au financement mhm. beneen jafe-jafe aussi mooy accès au marché mhm. marché yu bari daal seetlu na ne yeneen entreprise multinationale yi ñoo koy féetewoo mhm. bon day day jafe na pour suñu entreprise yi nga xam ne amuñu doole trop dugg dugg ci surtout ci BTP bi moo tax ñu bari nag dañ doon préconiser ce qu'on appelle la préférence nationale mm-hmm. même bu dul préférence nationale à cent pour cent sax mu doon cinquante pour cent yoo xam ne yi mm-hmm. ku entreprise bu ñëw di liggéey ci sunum réew nga fexe ba ñu lëkkaloog benn Sénégal entreprise sénégalaise mm-hmm. pour mu gën a ñoñol seen liggéey boo xoolee fu mel ni Dubaï Dubaï mënoo fa ñëw implanté fa te amoo associé bu ñuy wax ku dëkk Dubaï. donc yooyu yëpp c'est des solutions yoo xam ne nga beneen jafe-jafe bi aussi mooy ci wàllu dette intérieure bi mhm. état bi généralement da di amel te bu mhm. di amel mhm. day yi da leen ko yéex a fay te nit ku bariwul doole boo ko yéexee fay nga amee ko da koy gàllankoor te dañuy faral di wax am na benn proverbe guinéen bu koy wax quand gros maigrit le maigre meurt comme que ñi am doole fi ñu toll nii ñoo sonn parce que nous sommes dans une crise mondiale. Mhm. ñoo sonn waxatuma laa ñi nga amul doole donc. état bi gis naa ne président Diomaye. Mhm. am na yéene mhm. fay dette boobu. def na ci am def na ci ay orientation yu baax léegi ñoom ñu ngi ci yoon boobu en tout cas. Mm-hmm. entreprise sénégalaise ñu gën leen accompagner. Mm-hmm. ci wàllu financement. ci wàllu aussi accès au marché pour ñu mën a doxal. Mm-hmm. parce que c'est des sénégalais. di employé ay sénégalais. jàppale leen dafa war état bi. te gis naa ne daal ñu ngi ciy def ay jéego mais ba léegi des na quand même. mais lan moo ko waral dañoo gis avènement régime bu bees bi ñëw mais ñu gis jàpp ne entreprise bi dañoo gën a sonn lan moo waral loolu. coïncidence boobu. c'est nag dafa fekk ne aussi ñoom mhm. bi ñëw. régime bi dañ fekk situation yu compliquée. Mhm. situation yi nag pour nga régler ko pour il faut un peu de temps. Mhm. léegi nag ci loolu parce que c'est un régime qui a fait que quatre mois. te dégâts yi yi ñu fi fekk dégâts yu énorme la yoo xam ni. ci wàllu en da entreprise dañ leen fekkoon ñuy souffrir. pour ñu supporter ko wala pour ñu gérer ko day métti ci ñoom. pour ensuite. ci yàggagum fi léegi donc yooyu yëpp c'est des yooyu moo indi bu mais du du loo xam ne ñoom ci seen ci ñoom la def ci ñoom la jóge mhm. du ñoom ñoo ko dañoo ko fekk comme ñu ngi de trouver des solutions mhm. gis naa dettes yu bëri ñu ngi koy fay mhm. parce que il y a de dettes yooyu moo xam ne on te parle de donc yooyu yëpp ñu ngi ngi rembourser yenn dettes yi di def ay jeew pour loolu parce que nit ki aussi boo bu nekkee entreprise bu amee ay dettes léegi day am problème pour mm-hmm. liggéey mm-hmm. day am aussi problème pour fay liggéeykatam mm-hmm. donc yooyu yëpp il a en tout cas il y a des choses qui sont en train de se faire gis naa ne il y a des pas intéressants léegi nañ ko gën a renforcer ko consolider ko waaw Moussa Moussa tu de parfois waaw noonu la allez euh, bien sûr di dalal ñëpp di wax tamit euh, suñu téléspectateurs yi ñu si à travers Walf FM Walf TV ak euh, plateforme digitale yi voilà madame madame wala nga doon def c'est intéressant mhm. alors mais je dis est-ce que le gouvernement là où il est ce que euh, amul retard fekk na fi ay dette de milliards yooyu noonu est-ce que voilà quoi y a pas de retard. parce que ñu bëgg bu gaawee xam nga sénégalais amul patience. Mhm. waaw problème bi fu ñu toll la nekk. mooy li xale di wax te dañoo focaliser un espoir énorme mm-hmm. am nga nit ku nekk douze ans ci ay jafe-jafe mm-hmm. wala ko bu doon jay jafe-jafe su dund mm-hmm. mais jafe-jafe psychologique yi ak pression bi leen teg jàpp ñii tëj ñii sonal ñëpp xam nga. te mm-hmm. leen lu metti boole ko aussi ñoom ñu rendre compte seen alal. ñu ngi koy saax saaxee. Mm-hmm. ñun ñëpp bu dajaloo. Mm-hmm. léegi nag ñooñu boo gisee. sanction bi ñu def nii. jox un chèque de cinquante quatre pour cent et quelque a au kii à compagnie. Mhm. donc ça veut dire que ils en avaient marre. Mhm. ils devaient en finir avec ce régime là ils a kii ils avaient fait même le deuil de leurs espérances. Mhm. amatuñu yaakaar ci dara. bien sûr nag yaakaar jooju nag ñii di focaliser. moo tax nag. en exigence yi day bëri. te ñu ñu ñu ñu la fal aussi dañuy pressé pour nga def résultat. mais nag dañ leen ñu tuuti rek. je crois que ñu ci yoon bi. Mhm. te bu soobee yàlla dina baax. Uh-huh. mais du tere aussi. ñun mm-hmm. aussi am nañu suñuy exigence am nañu suñuy attente. bien sûr attente yooyu aussi. nañ mm-hmm. ko nañ ko nañ ciy bàyyi xel. justement Mademba euh, Ramata moo tax sañuy plongé ci univers média yi univers mm-hmm. presse bi. Euh, parce que gis nañ coow bi nga xamante ne am na fi euh, entreprise de presse yi wala patron de presse yi ñu bëri génn yuuxu di wax seen jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jaafonteel rawatina et de la presse bi nga xamante ne génn na ñu jàpp ne dañ ko distribuer de manière inéquitable toll ne Walfadjri ñu jël ay chain euh, chaîne chaîne euh, chaîne YouTube ah, yoo xamante ne di ko comparer ak groupe de presse bu mag bu toll ne Walfadjri di leen di jàpp di leen di jox ay some colossale par rapport à Walfadjri donc loolu c'est c'est déjà loolu boo ci référé woo rek xam ne c'est injuste noo ko jàngatee euh, vraiment. man nag bi ma gisee xam nga ñu ngi doon wax quoi ñun ñëpp ñu ngi doon wax mais amuñu ci woon benn certitude. parce que dama daan dégg groupe bu mel ni mhm. di kaas effectivement ak mhm. ñeneen quoi mhm. mais mënu ci woon am certitude te mënu woon am ampleur u mais boo xoolee liste bi waaw ak ñu ko joxe ak ñu ko joxe ak somme joxe loolu dangay ne mais comment cela se fait groupe bu mel ni Walfadjri ko ñëwal doole sur le plan am na télé am am site internet implanté wu à travers plusieurs régions dans ce pays te di def liggéey bu mucc ay donc yooyu problème la mhm. te am na benn site boo xaw ma al misra la tudd xaw ma waaw dafa am ay chaîne fictive wala lan la yooyu ay ay ay fictive lañ ko jox doo xam am na yoo xam doo ko xam sax fu nekk mhm. google rek fu nekk pour wër ko dama wër ko sonn chaîne imaginaire la kon te dix millions lañ ko attribué aide à la presse c'est grave au moment où xam nga lu koy waral mooy. Mhm. kumba am ndey ak kumba amul ndey. Mhm. te dañ doon seet aussi le régime seet ñi nga xam ne ils faisaient leur affaire. ñu faisait leur affaire ñu ñu jox leen ay somme yu colossal discrimination bi moo am foofu discrimination. Mhm. discrimination négative. discrimination sax mën na possible. mën na kii comme France. Mhm. dañuy def ce qu'on appelle aide à la diffusion. Mhm. ñu xool ni journal bi. mu ngi génnee lu bari ensuite mu ngi jaay lu bari ñu ne kii nañ ko dimbali. même France dañuy am aide direct ak aide indirecte. wala ñu ne fiscalité bi dañ ko def une fiscalité adaptée par rapport à la à la presse mm-hmm. xam nga presse c'est une entreprise particulière bokkul ak comme boutique bi nga xam ne dangay jënd cent jaayee cent vingt cinq wala cent cinq mm-hmm. presse doxewul loolu te ñoom dañu am ce qu'on appelle de aides indirectes du tere nag dañuy jox bu buñ la waxee la somme ki xamu trois cent xamu ñaata millions d'euros mhm. la ñuy à la presse mhm. loolu aide directe la sans compter nga xam ne fiscalité mhm. wala diffusion wala yenn kii quoi donc ça veut dire que la presse bu la ci kenn na elle a besoin léegi nag bañ ku ko aider mais na ko teg ci yoon vraiment parce qu'on ne peut pas la part d'un éléphant vraiment benn melentaan nga bu ko dox lekku ñeey <laughs> day exploser sax. waaw <laughs> donc ça veut dire que heureusement. Uh-huh. le régime qui venu. Uh-huh. veut corriger ça. Mm-hmm. léegi certainement moo tax mu def plateforme boobu pour recenser. Uh-huh. xam qui est qui fait quoi et représente quoi. léegi bu boobaa bu ñu ko xamee nag ku nekk xam ku nekk ñu xam ne lii nga yelloo. Mhm. lii nga mérité ñu jox maanaam le mérite sera récompensé. Mhm. dina am nag des des des kii qui vont disparaître. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que daawuñu liggéey. seen mbir yëpp ci tappale lañ ko doon teg. Mm-hmm. te tappale yorul àddina ay pexe aussi yorul àdduna da dem bu mujj gi da réer ci say pexe xam nga booy dribblé. da ngay dem ba dootoo am ko dribblé. finalement loolu donc il y aura une sélection naturelle qui va se produire. te sélection et uh-huh. au rendez tout okay. à fait sélection boobu war nañoo comptabiliser ba comptabiliser bu ñu doon comptabiliser wal fajri ñan euh, moo ko wër mën ko euh, calculer rajo bi euh, calculer internet bi compter ci aussi li nga xamante ne moom mooy presse écrite bi bu boole ci yooyu yëpp nga xamante ne nga xoolaat beneen organ de presse compter moom aussi ñaata la am. moom oh, voilà fi mu toll ci réew mi. mais mais defuñ ko dañoo ñëw basé. bu ñu doon seen ñett ñi ci ëppale moom ci la war a bokk. c'est ça. parce que non seulement sur le plan parce que je, je suis sur le plateau de Walfadjri quoi mais on parle de objective mais <laughs> sur le plan mm. du sur le plan infrastructure mm-hmm. sur le plan aussi rendement ak njariñ bi mu amal askan wi vraiment c'est un iran rend un service public énorme au peuple sénégalais te les gens se retrouvent à dos donc yooyu yëpp boole ko il a un professionnalisme qui est là. Mm-hmm. soit comme le disait le ministre là. Mm-hmm. Walfadjri boo gisee mu am yenn somme yi. Mm-hmm. boo Moussa Bokar Thiam. c'est parce que dafa dañ ko dañ coupé woon si ñaam loolu du waxi dara. waaw loolu du waxi dara c'était une manière de de lui faire ouais. de l'asphyxier, de ne pas. Et puis, mhm. Walfadjiri a toujours été combattu, mhm. mais jamais vaincu. Ok. Ouais, c'est ça. li ma bëgg a glisser monsieur Dia. Mhm. mooy on a vu comme li nga ko waxee y a des sites yoo xamante ni c'est inexistant et alors que jot nañ aide de la de même que ah, si rajo. man bu ma gisee la liste man gis naa ci ay rajo yoo xamante ni je n'ai même pas osé citer les les parce que ça sonne mal à l'oreille quoi en fait. alors que le ministre. a pris la décision ou bien l'initiative de publier la liste. Mm -hmm. et bu ñu ko publier on a vu bon des journalistes dénoncer cela ñu naan pourquoi mu koy publier genre yooyu secret la ak est-ce que le ministre n'a pas bien fait mm-hmm. euh, au lieu est-ce que waruñu ko woon encourager que au moins ñu koy jéem a critiquer parce mm-hmm. que ça nous a servi de jàpp naa ne mm-hmm. c'est un acte très salutaire parce que au moins ça permet de lever les équivoques. Oui. En France, ça se fait. Hein. Chaque année, en France, on publie la liste des bénéficiaires de l'aide à la mm-hmm. presse chaque année dañ ko publier mu leer mm-hmm. parce que xam nga sunu réew dafa am ñaari jàngoro yu mag benn bi mooy mm-hmm. manque de transparence mbir yi duñ ko leeral mukk loolu mooy indi problème yi mhm. ensuite beneen bi mal gouvernance maanaam ni ñu koy yorin wi du doon li toujours mhm. donc yooyu yëpp bu amee mhm. dafa laaj ñu leer ku la ne c'est inédit au Sénégal ñu soog a publier loolu moo tax xam nga ça permet de régler une chose mooy seclaire clair dans la tête de tout le monde que Walfadjri li mu doon wax du waxi kese wal fajiri li mu doon kaas du kaasi kese wal fajiri li li mu doon ñaxtu du ñaxtu boo xam ne basé wu ko fa et puis ça permet de voir que mbir yi ñu la demee woon donc a privilégié certains au détriment d'autres loolu nag dafay dañ mhm. loolu moo tax ñu bari de mais man je me crois pour boobu c'est un nag saltaire léegi nag li ci des mooy mhm. na fexe ba corriger incohérence ak bizarrerie ak incorrection yi am ñu corriger ko bu ko corriger nag teg mbir yi ci yoon léegi bu boobaa nag ku nekk dinañ xam li li li nga war a lekk ak li nga représenté ak li nga la war a jox boobu du am problème. mais est-ce que aussi war warut ci am de la part ñi nga xamante ne ñoom ñoo joxe aide à bi parce que dem nañ ba wax ne un milliard presque des millions yoo xam ne distribué nañ ko te xamuñ fan ñan lañ ko jox ba léegi dafa naax saay. en tout cas man parce que 800 millions. 800 millions. kooku moom c'est un argent à éclaircir. loolu dañ ko war a leeral parce que man mënu ma comprendre huit cent millions presque un milliard la deux cent millions rek nga jël ko jox ko ay entreprise yoo xam ne du ñu presse te mm. l'aide était destinée à la presse donc ça veut dire là-bas il y a problème léegi nañ xool ñan ñoo nekkoon responsable de ça qu'on les parce que loolu mën nag boo xoolee sax même ci wàllu fonctionnement mm-hmm. on te dit que il y a cent quatre-vingt-dix millions mm-hmm. pour le fonctionnement rek ñu yoroon affaire aide à la presse cent quatre-vingt-dix millions mu ne la publicité mhm. ak support cinquante millions te kaay leen jël si xaalis benn communiqué doy na ci kaay leen jël si xaalis ñu ne def nañ ci cinquante millions mhm. donc ça veut dire que yooyu yëpp c'est des problèmes gisoo pour kii forum yeeg gestion yeeg kii nu mu tudd. formation yeeg nañ ci deux cent vingt six millions. donc yooyu yëpp ça veut dire que notre argent l' argent du contribuable sénégalais a été maltraité. <laughs> ok uh-huh. dañ ko jël. Uh-huh. fooy ko malmené ko ba nga xam ne vraiment l' argent la. donc voilà gis nañ aide à la presse bi et gis nañ disparition bi. Mm. en faveur. di ñenn ñi. dispatching bi quoi waaw dispatching bi waaw. voilà en faveur te ñenn ñi te gis nañu ñi ci gën a avantage wu mooy patron de presse yoo xamante ni ñoom ñoo fi doon woote lancé ba dem ba lancé mot d'ordre est-ce que jàppoo ne c'est pas une honte pour eux. ci ñoom waaw xam nga ku wone ne yow doo jub. da nga nekk ci yoon. te bu demee ba ñu gis ne. Mm-hmm. yow li nga doon wax yëpp ak avantage yi nga doon am mm-hmm. dafa féewalu mm-hmm. donc dina am di nga am gàcce boo xam ne da nga koy am naturellement bien sûr parce que on te découvre léegi dañuy xam ne kii wax dëgg yàlla li mu doon wax du lii am donc ça veut dire que loolu mën mën di nga am tuuti remords nag boo xanaa nga nekk séeréer mais boo nekkee nit bu normal. Mhm. boo nekkul séeréer moom di nga am tuuti remor quoi. <laughs> boo nekkul séeréer moom di nga am tuuti remor mais boo nekkee séeréer moom <laughs> amul problème mais boo nekkul séeréer di nga am remor quoi parce que ça veut que. mais en tout cas man <laughs> l'intérêt dans cette affaire là. c'est que on remet les pendules à l'heure. maintenant Mm-hmm. heure bu bees moo am. Mm-hmm. y a une nouvelle heure. léegi il faudra s'y conformer. te heure boobu dafa am ay exigences sur le plan du personnel. Mm. sur le plan de du quitus fiscal de la fiscalité. Mm-hmm. en tout cas sur le plan aussi des infrastructures donc dootul yomb ci. te il donne un mois. pour nit ñi régulariser wu tu vois le CNRA sax wax na ci. waaw CNRA justement télé yi donc bëgg a conforté wu code à la presse bi joxe na dafa yomb soxna si nga yor sa kii rek def sa chaîne YouTube. Mhm. xool soxna Fatou wax ko lu la neex yëkku ko. lu la neex seen seen Moussa waxulu la ne loolu dafa yomboon trop. Mm-hmm. donc il de l'ordre dans la cité quoi. Mm-hmm. te dans la cité de la presse quoi. le calvaire que mm-hmm. la presse. surtout euh, notamment les les jeunes alors est-ce que également il n'est pas temps de revoir tout ça au moins ñu jëm leen jox benn avantage yooyu noonu parce que. tout est parti de là. waaw xam nga. kii nu mu tuddati. les travailleurs de la presse surtout les journalistes ak les jeunes reporters mmh. vivent dans la plupart des cas dans la précarité mmh. cette précarité nag ça a été favorisé par l'environnement dans lequel ils évoluent léegi environnement bi ak nouvelles mesures yi en tout cas si on arrive à appliquer ces nouvelles mesures parce que le président Diomaye a demandé à ce que le le code de la presse soit appliqué intégralement bu ñu koy appliquer intégralement ça veut dire on prend en charge les conditions de vie et de travail des journalistes mm-hmm. te selon le code de la presse vraiment c'est des conditions yoo xam ne mm-hmm. conditions yu baax la mm-hmm. donc si on arrive à appliquer ça ce serait une bonne chose mu bañ a doon nag des annonces politiques comme on en a toujours vu dans ce pays quoi léegi ñu kii nañu fexe ba lii loolu ñu kii ñu saytu ko fexe ba entreprise yi di ko ma doon mm-hmm. parce que on ne peut pas avoir une presse ou ceux qui font le travail mm-hmm. vivent dans la précarité mm-hmm. et de, de et puis loolu da leen di exposé nga xam ne ils sont sujets à la corruption wala à certaines concussions yoo xam ne yi c'est fatal pour leur carrière wala pour leur avenir en tout cas li ñu tam ñi daal les nouvelles mesures là sont vraiment salutaires mhm. et elles peuvent garantir mhm. les bonnes performances mhm. et la qualité du service et la qualité aussi de, ce, de la qualité de vie de ceux qui mènent travail. Mhm. te il est temps euh, mécontentement boobu ngay wax mhm. tamit Moussa. Mhm. Euh, te ba dem ba di ko wax. Euh, mécontentement reporter yi ak personnel yi yooyu tamit dañ ko war a tenir en compte ci li nga xamante ne moom la ñuy gérer surtout ça parce que loolu day indi frustration gis nañ ko ci journée san presse bi ba mu amee. li nga xamante ne reporter yi ngeen ñi génn aussi di di ñaawlu li di mel. léegi foofu aussi il faut ñu fexe ba. les organisations syndicales mhm. gën a impliqué wu dans le terrain de la lutte fexe aussi ba ñu fédéré ak association de projet ñu fédéré seen seeni force mhm. parce que bu la ci kenn pour boo boo leen dajalewul mu leen am doole donc il faut faudrait que ñu jàpp ne mhm. man mi nekk fii wala fajiri wala keneen ki nekk fële ainsi ñu ñëpp ay mbokk leen te nous avons le même but le même destin. Et ensuite, nous devons travailler à faire en sorte que nit ki chaque jour saa yoo yeewoo question bi nga war a poser en tant que acteur de la presse ngay def. Mhm. que dois-je faire pour rendre l'univers de la presse mhm. mais est-ce tamit gouvernement euh, war na taxaw yenn taxawaay yow jàpp nga ne ne groupe de presse bi àndut ak man rek. dinaa jéem a dagg baatam c'est-à-dire su may distribuer aide à la presse bi dinaa ko jox loo xamante ne du ko jëriñ dara comme ni ñu ko defee Walfadjri booy euh, seet en quelque sorte sanction la est-ce que état war na am taxawaay boobu non état warta mun a am taxawaay boobu parce que état mhm. dañ ko fi teg pour les dix-huit millions de sénégalais mhm. état dañ ko fi teg pour mu procurer le mieux-être mhm. à ces population loolu tax ñu teg ko xanaa xam ne ñoom ñun la ñuy liggéeyal ñun léegi kon kay nañu fexe ba ñun ñu gis ci li ci suñu bopp ci li ñuy def ñu ñoo leen embauché di la jox la oto bu bakkane mm. jox la kër gu mucc ayib mm. jox la téléphone jox la courant jox la lépp mm-hmm. ne la wax dëgg yàlla loolu war a da nga war a kii léegi nag ci biir loolu nag mm-hmm. waroo am par par parloo léegi nag mu on a une une chance ce que j'appelle une chance parce que dañu am président de la république boo xam ne mm-hmm. il pas président de parti parce que difficulté majeure bi ñu amoon au Sénégal mooy faiblesse bu mag bi mooy le président de la République est chef de parti. quand on chef de parti on est chef de clan. Mm-hmm. quand on chef de clan par essence on est partisan. Mm-hmm. boo gisee li ñu dal ci douze an yi parce que le président Macky Sall était chef de parti et chef de l'État. Mm-hmm. il protégeait ay ñoñam. léegi nag moo tax mbay yi bari woon. du leen def dara parce que da ngay am immunité boo xam ne da koy am. jàpp ne yow tànk moo tax. Mhm. léegi nag bi mu fi jógee. Mhm. donc yu bari dina feeñ te yeneen mhm. dina gën a feeñ. dina gën a feeñ difficulté entreprise la ñuy waxaat ba tey sax ñu ñëw ci port autonome de Dakar. gis nañ coow ba fa am ak ñi nga xamante ne ñu ngi leen di wàññi. yooyu yëpp am na fa aussi mi beneen euh, problème encore. waaw fo foofu nag. Mhm. port moom il faut ñu leeral ko. waaw du ñun ñoo ko war a leeral mais la justice daf ko war a leeral parce que on parle de marché de gré à gré. Mhm. ak yi ñu ji ñëpp le le nouveau DG du port. muy Waly Bodian. donc yooyu war nañ ko mën a leeral quoi parce que ñoom ñoo ñu woo ci jub jubal ak. jubanti mhm. ku woon nit ki jub jubal jubanti kay da nga teg leeral. te ci leeral mbir yi. di ko leeral c' est le cas du docteur c' ak kii. depuis lors le ministre est silencieux. moom sax nee dina génn tey. Ah, point de c' est une bonne chose. mais nag au de ça sax. Mhm. parce il faut lii mu leer du du du yem ci génn bi de. Mhm. la justice de. boo jubal daal comme concept da nga war a génn di leeral di wax a chaque fois. Sénégalais la justice devrait pouvoir s'autosaisir. wala le ministre de la justice aussi. Mhm. nagoo sëñ bi lijjantil ma lii. bien sûr au-delà de ça sax bu doon dans un pays normal. Mm-hmm. comme en France wala kii da ngay gis le ministre aurait démissionné parce qu'on parle de milliards et de corruption. tout à fait Mamadou Seck il avait un problème avec la justice. Mm-hmm. ancien ministre su Wade mais il a démissionné ne dafa ñëw ci Ablaye Wade ne ko président xam mu bëgg. Mm-hmm. damay démissionné. seetal sama der ba pare après ñëwaat bu dee soxla ma nga nommé waat ministre. tout ce qu'il a dem ñu régler problème bi avec la mënuñu nga nekk ministre de l'hydraulique mhm. ñu lay jiiñ ay milliards ay corruption ak yeneen ak yeneen ay marché à gré ak li ñu fi defi léegi nag tout le monde est est kii que mhm. Cheikh mi ngi ñëwaat à di gën a dëggal li muy wax mhm. donc ça veut dire que c'est problème du yem ci ay toog taxaw ci télé wax ak Sénégal noonu du yem foofu de dañu war dem vers la justice Cheikh Dieng nee na il a bu newee ci justice dina affirmer dina wax li fa xaw mhm. amatul problème ku mhm. bëgg ku bëgg mhm. fu ak kuy wut ku la wéttali tëjal ma bunt <laughs> léegi le problème qui se pose jub jubal jubbante la ñu woote rupture totale tey ñu xëy dégg un ministre ci ay affaire de corruption est-ce que ça c'est pas une une grosse déception si la est avéré waaw moo tax nag léegi loolu moo tax ma ne dañ ko war a leeral leeral nañ xam fa lañ koy leeral li olof di wax mbax na fa mu doone benn du ay taxaw def conférence de presse moo koy leeral de mm-hmm. il faut que la justice s'en saisisse de cette question bu ko mënul aussi bu doon yeneen réew de ministre day démissionné mm-hmm. ne man maa ngi dem je me mets à la disposition li ñu wax dafa rëy mm-hmm. et puis c'est des milliards ay milliards la milliards xoolu ñaata ay millions ngay compter un deux ah. trois ba mille mooy million ngay compter un un deux mooy milliards. Mhm. loolu du lu ndaw. Mhm. et puis suñu réew aussi dañu am nos maigres ressources là. Mhm. on doit les protéger. donc ça veut dire que sur ce problème Cheikh Dia bi il faut ñu régler ko leeral ko. sinon da leen di topp. parce que li ñu woo loolu. dañu woon ne ñun dañuy jub jubal jubanti boo jub jubal jubanti da ngay leeral. waaw foofu mooy mooy aboutissement bi. Mhm. jub jubal jubante. après leeral moo ci déglu. mooy la le dernier maillon de la chaîne. Mhm. donc on les attend sur cette question là. Mhm. parce que cette guerre ce que j'appelle la guerre des chefs là. doit être doit prendre fin. au niveau de la justice. tout à fait daa mel sax parce que gis nañu mooy camp kii génn na barki. gis naa j'ai vu des second couteaux là. sorti moom lañ déggoo ko. ton silence est est troublant. le silence de ñu ne Cheikh Tidiane Dièye est troublant. Mhm. ak li ñu ko wax yëpp gis naa ñu et puis ñoom aussi en sortant ils n'ont pas répondu aux vraies questions. Mhm. li leen Cheikh Cheikh Dièye di wax répondre une question boobu. ils nous divertissent en nous parlant d'un véhicule. Mhm. c'est plus profond qu'un véhicule on parle de milliards, on ah, parle d'un véhicule de quatre-vingts millions. <laughs> en tout cas ça mérite d'être justifié te hmm. te moom euh, le ministre Cheikh Tidiane moom dina janoo ak taskatu xibaar yi tey ñu ngi ko ciy ah. xaar ci ay leeral comme ni nga waxee rek boo demee ba ne jub jubal jubanti waroo nekk ci benn silence boo xamante ne day lëndëmal sax wala nit ñi duñu xam donc da ciy am solo. Mm-hmm. nañ ci am yaakaar am ay retombées. Mm-hmm. waaye tamit ci wàllu justice comme ni nga ko waxee rek ma euh, Mademba euh, mm-hmm. tamit loolu dina ci am solo. Euh, parce que foofu rek la mën a aboutir pour mu gën a leer. mooy ci wàllu justice bi nga xamante ne wax nga ko ci léegi ci mbir mi. ginnaaw loolu ñuy xaar li nga xamante ne mooy dissolution assemblée nationale. loolu yëpp ñu ngi ko ciy wax ñu ne réel politique du président Bassirou Diomaye Faye. waaw xam nga. déclaration de politique générale moom yàgg na ci réew mi les gens l'ont toujours fait mm-hmm. mais man sama problème fi mu toll lan la moi je n'ai dans l'histoire politique de ce pays une déclaration de politique générale mm. faire autant de bruit <laughs> c'est la première c'est la première fois ñu def nii ñii di indi lii ñii di indi lii léegi nag mm-hmm. contexte yi. waaw benn. waaw mais contexte bi amoon na fi. Euh, parce que boo interroger histoire. en 2000. Uh-huh. le président Ablaye Wade lorsqu'il a pris le pouvoir. Mm-hmm. il a trouvé un régime socialiste majoritaire à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. mais il a eu l'intelligence politique de mm-hmm. discuter ak ñoom wax ak ñoom trouver un ce qu'on un ag un gentleman agreement. d'accord nag ci la. Moustapha Niass à l'époque premier ministre defee une déclaration de politique générale mhm. devant une assemblée dans laquelle il était minoritaire mhm. mooy le cas de Ousmane Sonko mhm. premier ministre léegi nag ñoom comme que ils avaient trouvé un gentleman agreement entre ndaanaan réglé nañ ko mu def déclaration et puis ce extraordinaire ce jour-là la fait le procès de 40 ans du régime socialiste. Mhm. yëkk leen lu mel ni xeme. Mhm. mais terewul. Mhm. après mu jàll ñu nekk ci leneen. léegi nag ñeneen ministres yëpp ils ont fait. premier ministre ils ont fait une déclaration de politique générale devant une assemblée qui leur est favorable. moom nag problème bi foofu la nekk. moom est-ce qu'ils vont accepter de faire une déclaration devant une assemblée générale boo xam ne. majoritairement am na ñoom moom boole ko aussi ñi ànd ak moom ñoom dans la coalition Yewwi Askan Wi dañoo kii nu mu tuddati il a une friction ku mel ni Khalifa Sall à onze députés onze députés yooyu fi mu toll nii neexawuñu le PUR depuis la depuis les élections le PUR est mhm. am na onze députés xamoo nu mu xalaat boole ko aussi la majorité qui se dessine à Benno donc yooyu yëpp te boo gisee acte yu ñu posé ak li ñu doon wax ak yëpp léegi nag prétexte dina jafe parce que yow yaa ne woon ñu dindil la ñu réglementé excusez-moi réglementé intérieur bi defal nañ la loolu mhm. léegi lan moo ci des dem taxaw def dem taxaw mais sa yaakaar naa ne mhm. voie bi ñu jël du doon léegi de dem taxaw bi buñ dissoudre assemblée nationale dégg naa président Ousmane Sonko daal li ma gën a njort mhm. mooy fa muy taxawee mhm. mooy mhm. assemblée nationale mais xam nga xam nga sànq sànq wax nga ko mooy vous avez un promoté vers l'histoire pour euh, wax en 2000 contrairement ak bii bu ñu defee comparaison bi dinañ gis ni assemblée général assemblée autant pour moi assemblée nationale ba fa nekkoon mën nañu wax ils sont matures contrairement ak assemblée bi. waaw contrairement ak assemblée une assemblée boo xamante ni. Uh-huh. Euh, dañuy on dit des des termes yoo comme ay dogot dogote mais est-ce que c'est ça qu'on attend d'une assemblée. Hmm. waaw donc xam nga ñee je peux je peux dire que en 2000 ñee esprit amoon nañ esprit de grandeur pour au moins affronter. que man maanaam régime Abdou Diouf l'exposer. tout leur affaire xam nga ñu dañoo ñëw au pouvoir. ñu fi fekkoon l'adversité est tellement féroce ñoom seen kii dafa adversité bi moo féroce ba nga xam ne pour ñu toog saa waxtaan c'est un problème dañoo jaar foo xam ne dafa metti ñoom diggante le président Macky Sall ak Ousmane Sonko Pastef ak les partisans wala souteneurs de Pastef diggante bi dafa metti ba nga xam ne pour ñu wax te aussi loolu jéemuñu ko mm. jëm ñu ko tempéré. Mm-hmm. boo déggee toujours discours bi. ki jëm ci kële. ko waa benn day metti ñu ne aussi discours boobu day metti donc mm-hmm. ku nekk day xaar. Mm-hmm. ñoom la kii nu mu tuddee la Benno attend la venue de Ousmane Sonko. pour chercher à l'humilier. le waaw pour chercher à l'humilier. parce que ils avaient même prévu des pancartes. waaw sur lesquelles on inscrit. Adji Sarr ak yeneen affaire ah. donc ça veut dire que moom ah. l' est tellement fausse ba nga mm-hmm. xam ne c' est ce qu'il voulait pourverrer ah, léegi nag man jàpp naa ne mm-hmm. nous sommes en politique mm-hmm. et aller loin maintenant ça monte comme que il n'y a aucun délai qui impose Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique il peut le faire quand il waaw bu ko neexee bu ko neexee mu def ko léegi bu ko neexee mu def ko après amul délai. léegi nag moom politiquement bu defee lecture. Mhm. ak ñi ñoo dégg ñoom Guy Marius Sagna di waxee ñooñu. Mhm. donc ak ñu ñu koy ñu koy soutenir ñun ñëpp bu ñuy ni ñuy waxee noonu. gisoo Mamadou Lamine Diallo nee na il faut qu'on aille vers la dissolution donc. Mhm. ça veut dire que ñoom direction boobu boobu la ñu gën a sawar. que ñoo toogaan et puis nous sommes presque au 12 septembre. l'Assemblée nationale ouais. peut être dissoute à partir peut être dissoute à partir du septembre. 12 septembre. waaw parce que elle aura fait deux ans. c'est ce que dit la Constitution donc. 12 septembre jeex jeex na nous sommes tey. waaw 19 mois. dans trois semaines dans dans du 18 a waaw donc ça dire que. Mhm. certainement loolu la ñuy sëb et puis aussi. Mhm. ils sont en politique ils vont mettre tous les atouts de leur côté. jël sa atout yëpp sa côté. pour ba nga xam ne boo ñëw dama ñëw nekk à l'aise dans une assemblée nationale. acquise à ta cause. mais c' est de bonne mhm. en tout cas merci beaucoup madame Baramata Dia. c'est moi qui mal barré quoi. yi oh, nag ñoo leen di kii à chaque fois <laughs> dañ leen di gën a revigorer. j'espère euh, dina jaajëfal bu baax euh, dañuy ñëw léegi ci rubrique euh, éducation ak Moussa Sène éducation sujet du jour bi di euh, l'inquiétude des administrateurs scolaires du Sénégal Moussa ñu bàyyi la invité di Koumba Ba di porte-parole des administrateurs scolaires du Sénégal. voilà euh, Bintou euh, Fatou Diouf Faye ni ko waxee mooy Koumba Ba suñu invité moo nekk porte-parole bés bi moo représenté cadre.